nuyuwaat naa la bu si loo sant Serigne Touba bu wér. nga a bëree grand combat yow ak Guine bu Yoff noo waajalee bés bi. waaw ànd ak samay mbok rek. waaw ànd ak samay mbokk. waa Colobane sama waa dëkk waa Newraan. waaw ñoom la àndal ci combat bi rek. waaw ak sama doomu ndey yi ñoom Ba Djili armée 2 waaw. loo andi xeex bëre damay xeex. a na taxaw dëggal boppam. mais est-ce que dóor Guine tamit yomb na. nee ko Tonnerre nga taxaw dëggal sa bopp. xeex rek nga namu ci combat bi xeex rek. day gaaw wala day yéex. combat ah. bu taxawee mu gaaw lool ah. bu taxawee ma du ma ko daan ko. Ah. ngir nga a bëre grand combat lan nga yëg fi mu toll nii. waaw ainsi maa yëg su ma mbokk andi ma rek bon man li ma war a andee ma waaj ni ma war a waajee ñu su ma waa écrit nga di ñaan yàlla may ma ndam si kaw Tonnerre 2. waaye dama ko laaj nee na dafa bëgg nga rek ba na ay dóor la namu ci yow. moom li mu bëgg rek dinañ ko def dina bëre yàlla xam na loolu dafa yaakamti rek nee na daal taxawal sa bopp dinañ taxaw dëggal suñu boppam ñu xool moom la après nan lay deme quoi. ma ne ko duma kii maa yomb na. ah yombul moos yàlla la ko taxawal de. bëri wuli nuyu naa la. Bokar Ndour. waaw maa ngi lay nuyu. Ah. di sant suñu borom yàlla suñu borom. bu baax di ko santaat ndax lii lépp moom la. yàlla maa ngi lay gërëm dee sa alhamdulilah rabbi alamin di sant yàlla. di sant ñi ma jàppale woon ci combat bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp góor jigéen mag ak ndaw surtout ñu nekk ci YouTube bi sama sama supporter yi nekk di ma supporter di ma ñaanal maa ngi leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di dolliwaat di leen gërëm di leen sat bu baax a baax a baax a baax. nga bëre nga daan bëre gëj a am ndam ba yàlla def nga am ndam ndam bi luul yi noo ko dundee. waa li neexut. na kay. ma gëj a am ndam. wax ak yàlla sunu borom mu dimbali ma ànd man. keroog ma am ndam. waaw li neexut booga trop sax neexut sama gaay yi sant bu baax a baax li lépp moom la parce que gëj naa am victoire boo wax moom mu dimbali ma ànd ak man ba ma am ndam fii keroog maa ngi koy sant bu baax alhamdulilah rabbi alam yàlla suñu borom liiru jaana des nag liiru jaana des nooy waajalee bés boobu waaw liiru jaana ba wax naa ko ko waru moo rek moom parce que liiru jaana daanu fi kenn mais bu dee daa wër di dox di saaga nit di xeex ak tey tey ak xuloo ah. man kaay de damaa bëgg a gis ku wér di ma doog ba ba mu wér kese big pato waxoon naa ko ne ko su ma paree circulation laa ko yóbbu ah. yóbbu naa ko fa yóbbuwu ko. dem na circulation neexul liiru jaan daa dof ah. ma bëgg koo dóor ba mu wér donc mënu boole wala li neexul. mais est-ce que tamit mais bu bu dofee nga bëgg ko dóor tamit mbaa doo ko yokku. ku wér di c'est boo boo war dee. dofoo normal xaw a dof dofoo dañ laa war a dóor ba nga wër parce que ay doom mën la faj ay dóor boo xamee wëradi di dox di saaga xam nga liiru day dox di saaga nit ñi di xaw a wëradi da nga koy dóor ba mu wër géejawaay bi ngay dugg nag nee na heure bu la gisee géejawaay di am problème nee na moom moom géejawaay moom moomul géejawaay xam nga lan la dëkk ci dëkk bi dafa bi moo ko gën liiru géejawaay la dëkk mais defaru géejawaay parce que mooy seen mag muy jaxase waa mbëri géejawaay yëpp. mooy monument géejawaay. mais kaay ma wax la. mbëri géejawaay. tey bu nu xulooyee moom moo tax parce que day dem ci dalagay de may ko dix rek. mun naa ko yaa fi ne gay dina soxore moom jaxase dalagay de amul problème ay lat de guerre guy gi ñoo amul problème mais li ñu daan mooy saytaane bi nag géejawaay di jaxase waaw man mii di xaritu. yàlla te yàlla dafa rëb kuy jaxasay nit waaw man na a ab dox ba mu ba dootul jaxase kenn wala neexul saytaane boo xam ne daane géejoo di jaxase nit ñi rek di rimbaaje man nar koo door ba mu réglé nekk nit dootul jaxase kenn wala neexul saytaane la mu ngi jaxase géejoo moomut géejoo waay géejoo waay maa ko fa man fa laa dëkk Balla Gaye 2 man la àndal Sa Thiès maa koy gërëm Lac de Guiers 2 loolu noo yàgg dama ne la dëkk ci dëkk bi ah, dafa dëkk boo gan moom dafa dëkk di jaxase nit ñi di rimbaaje dinaa ko door ba mu wër pelek dootul jaxase nit dootul lambal dootul wax lu mu war wax waa li neexul li neexul bokka neex na li ne boos li neexul boos li neexul neex na de. booy sama xarit li neexul. neex na. Lutte TV keroog ñu sponsorisé ma ma am ndam wala li neexul Lutte TV. neex na neex kontaan naa boobu. maa ngi lay fay Boucar maa ngi char. lan nga yëg tey nga gis nga tëgg bés bu tool yi public si amateurs yi lan nga yëg. waa kontaan rek kontaan si amateurs yëpp. depuis ban ubbee suñ saison ba tey ñu ngi ñëw en masse suñ tëgee làmb ñu ñëw xam nga li gën a neex mooy woote ñu wuy si la. ñii maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax képp kuy amateur Sénégal kontaan naa ci ñoom te yaakaar naa ne kontaan nañ ci man rawatina waa diaspora bi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax ndax lépp lu ñuy def ñu ngi ñëw di participer ci li ñuy liggéey. mu mel ni lii suukaru koor la ndewenel bi mbaa moo ngi ñëw. non ndewenel bi Jurbel la si korité bu am ñaari fan njaareem laa jëm booy ma doon parasante fii njaareem laay sampoo ak ñoom foofu laa dëkk wane fa sama bopp nag wane sama bopp bawol ndax cooli cooli nag bawol la. incha allah jaajëf. waaw final l'arbitre sifflé na wala grand combat. grand combat ba ma yàq Xaadim. waaw fii nag du bëre simple li avec frappe la dóoral ma dóor la. avec frappe dóoral ma dóor ngin bu yoof. Assane Assane Ndiaye moo bool bool bu mag bi. moo fi woote tey. ngin bu yoof ikiri Ndakaaru. ngin bu yoof léegi seen melo ngi nuyu Tonnerre 2 écurie Ndakaaru bi mu fi mujj diggante Laay Goté la ña ngay lewaatoo ñoom ñaar lewaatoo bu diit xaarima ta combat bi narul yomb combat bi du mën a yomb sax ndax kii dafa jóge ci defet kii jóge ci victoire kii jóge ci victoire diggante ba xumbal jiit bu yow Tonnerre numéro ñaar jiit bu yow Boy Seras si daanaka Tonnerre a waaw Tonnerre doo Pikine moo sut Tonnerre. Tonnerre Tonnerre Tonnerre ngir moo sut damaa juum. waaw Tonnerre daa ma la gën a sut. Tonnerre Tonnerre daa ma la. Tonnerre dafa tàmm ba na man damaa bëgg arbitre siffle mu taxaw ma duma ko ma ne ko duma ngir mbaa dina waaye arbitre siffle nag ak duma lay tay mu leer. ñëw yow ak ak Tonnerre. maa sànq ma déglu si sa door Massar nuyu naa ko. waaw Cheikh Massar Moussa Moussa Moussa Karim. Modou Mbaye borom Fassar nuyu naa ko. kii bi ñoo am tënal ko. da nga jàpp ne ñoom ñaar. sama gànnaaw man Fane Sène nuyu naa la. maa ngi nuyu Bidi Mbow borom Espagne. kii bi ñoo am. numéro 2. wala ñoo nag naa la xaar di wax na seen. jàpp ñoom ñaar. to simla